ji bëggoon naa euh, des ci li nga xamante ni moom moo di euh, sa musique mhm. tey soo doon définir li nga xamante ni jot nga ko def sa début carrière euh, ba tey jii donc stylement parlant ci li nga xamante ni moom mooy rap bi ngay def est-ce que am mhm. na évolution wala da nga resté ci même style bi nga xamante ni moom nga commencé woon non bu baax baax baax baax évolution pour man évolution bi c'est d'année en année sa fait mhm. ça ça dépend lan laay génnee comme projet wala lan laay proposer gars man su ma définis comme un artiste genre un rappeur qui sait tout faire par exemple rappeur tey moom la yàlla may mu dem def tegu si mbalax su ko neexee mu dem tegu si salsa wala pop wala leneen ak leneen ak leneen tu waa am na ñoo xam ne benn genre de musique lañ xam moom la ñuy def mhm. donc man comme ni may waxee je me définis comme un artiste et que depuis le début de ma carrière am na évolution bu énorme lay wax quoi côté musicalité ak si sama personne mhm. développement personnel donc euh, ko que fait man à chaque fois damay jéem a xool loo xam ne nii mënuma ko ma essayer ko. Mm. genre dem dem dem ko parfaire ba am li ma bëgg ba tey ji kat su ma ko joxee nit kiy déglu même bu fekkee xamul musique dina la ah lii nii kat c'est parfaitement bien fait tu vois tey sama sama combat loolu la sama combat mooy un sénégalais comme ni ñuy gisee ay Davido wala ay euh, Wizkid wala ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. nekk ay nigériens ba pare mm-hmm. reconnu dans le monde man tey sama. sama gis-gis lool la en fait comprendre mhm. am naa gis-gis bu gën a large et que ci biir année bi daal gars yi dinañ ci am ay aperçu nank naa you know. ah vis-à-vis de l'international. donc voilà. on va rebondir dessus ci international boobu noonu ngay wax donc on voit de plus en plus des artistes yoo xamante ne euh, ngi dem à l'international jéem a si seen musique voire même def ay featuring ak des artistes de renom. tey jii est-ce que yaa ngi liggéey ci jëm ci loolu wala am nga ay maison de prod yoo xamante ne yaa ngi ànd ak ñoom pour yegg foofu bon man je m'autoproduis mhm. maay produire sama bopp di produire sama jabar mhm. mais tout le temps dañuy am ay proposition de label wala ay nit yoo xam ne dañuy ñëw bëgg liggéey ak yow mhm. tu vois côté international tam comme ni ngay wax nii tey pour man lépp loo loo loo nekk di def yow en tant que artiste yaayu a une équipe derrière tu Euh, hormis équipe boobu noonu tey dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo lay branché ñoon la ñuy wooyee ay link en fait mhm. comprendre mën nañ la link ak diw wala mën nañ la link ak jiw boo xam ne c'est un artiste de renommée mhm. tu en tout cas lu ma mën a wax rek pour bañ a spoiler mhm. mooy que ne ngi si liggéey bi am na ay affaires nekk di def am na yu pare am na yoo xam ne mu ngi si yoon bi et daal dañuy ñaan rek sénégalais yi ñu gudd fan ak wér euh, wér bi surtout c'est important et après voilà au fil du temps daal dinañ gis suñu yéene lan la ak suñu bët fan lañ ko teg quoi tu vois. Mhm. man moom je un gars boo xam ne je suis pas trop parleur. je mhm. préfère di def xam nga affaire yi di wax sama place. exactement yeah. si si donc euh, bëgg naa ñu ñëw tamit ci li nga xamante ni moom mooy di si clip Tarkinda. donc mhm. euh, on m'a soufflé que tey jii tarkinda nekkul loo xamante si c'était quelque chose de nouveau c'était mhm. préparé euh, entre 2019 et 2020 mhm. nga bàyyi ba euh, début d'année 2023 daal di posté clip tarkinda pourquoi ce choix la ma di que ne peut-être période bi moo nekkoon période am comme ni nga ko waxee son bi def na deux ans ou plus plus de deux ans ñu def ko bon bañ ko defee nag depuis bañ ko defee ñun suñu bopp xamoon nañ ne nii saa dina nekk it quoi. Mhm. dina yëngal. Mhm. donc peut-être période bi ñu ko defee c'était un peu chelou xam nga mooy période bi pandémie bi di soog a di genre def nañ ko balaa mhm. pendemie bi. mais après pandémie bi moo ñëw gis nga bi mu ñëwee secteur yëpp a tëju activité yi doo def concert peut-être boo defee clip rarement ba rarement nga koy def après c'était pas trop option pour génne ko période boobu noonu nga xam ne après boo génnee y a pas de concert qui suit. ni démission nii dara quoi donc pertement la donc après. suñu artiste bu bees bi ñu xam veniwu leen a ñëw na xam nga je me ma concentré wu un peu si moom xam nga ñu liggéey suñu projet liggéey si ay son solo am yu mu doon def mhm. donc ça ça m'a un du temps ba bi ñuy waajal suñu projet concert bi ñu mujjee def ni Alsane jigo laa ne gars yi foog ñu génne benn affaire en solo quoi tu vois pour gars yi peut-être bañ a yaakaar ne dañ jël lépp wekku ko ci mhm. xam nga vie de couple bi wala ay son couple yaa y a d'autres projets quoi. Mm -hmm. donc juste pour dire que ne Tarkinda moo nekk sama premier single prochain album buy ñëw. Mm -hmm. et a d'autres qui vont suivre. qui vont suivre yeah. Euh, par rapport au clip artistiquement parlant <coughs> est-ce que li nekk ci biir euh, ce sont tes idées wala dafa am ko xamante ne moom moo euh, scénarisé loolu yëpp parce qu'on voit mhm. vraiment un clip bien travaillé derrière. man nag su may liggéey ak nit ci lu mën di nekk du ma la bàyyi ak liggéey bi yow kese. Mhm. nga nekk si man dina ñ wax la ay gis-gis. ba ci cadrage yeeg étalonnage yeeg yooyu yooyu ñoom damay joxe sama sama euh, damay joxe sama avis quoi. Mhm. tu par rapport ak vidéo bi pas intégralement mais am na ci peut-être yenn plan yoo xam ne nii maa ko imaginé ma ne lii la mais sinon majeur majeur plan wu majeur parti wu plan yi ñu def. Mhm. wala scénario bi c'est les réalisateurs optiques ma leen di nuyu de passage parce que c'est des jeunes. Mhm. ay xale yu ndaw lañ. di def ay tu vois so di leen remercier ci confiance bi et waaw ouais, on a fait un beau clip ah. oui effectivement que bëgg nañ ko. Mhm. je pense que la mooy daal.